détaillé am na pétard yoo xam ne 3000 francs lay jara am bi di réew mi quotidien nee na en tout cas li bu mag am na ci diwaanu Sandaga ak fin bi rawatina ñi nga xam ne ñooy jaay pétard ñooñu yëguñu crise bi ndax seen mbir ma ngi dox yéen gi xëy duñu xibara naan ñu année 2021 bi bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne am na ci réewum Sénégal bëri bëri na ay violence yoo xam ne am na ci réew mi journal bi nee ñi nga xam moo am ci réew mi ba tey ci journal bi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samba mi nga xam ne mooy directeur publication réew mi quotidien ma ngi jaajëfal moom Assane Samb mbooleem ñi nga xam ne ay lecteuru réew mi quotidien lañu daat nay jaajëfal bu baax a baax président Mbagnick Diop ndax nee na bëri na loo xam ne ma ngi ko supporté ci li nga xam ne ñoo ngi koy wax ak li nga xam ne ñoo koy bind te am na ci loo xam ne mën na ko gàllankoor ma ngi jaajëfal bu baax a baax directeur général nga xam ne ñooy personnel u groupe bi ñëpp Assane Samb nee na ci xalimaam ma ngi leen di jaajëfal di jaajëfal ñi nga xam ne maanaam ñooy ay lecteur am yéenekaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu 2021 duutuñu ko gaawati fàtte ndax émeute yi nga xam ne amoon na ci réew mi maanaam musiba ma ba kumba gu rëy moo naroon a am Sénégal am na lu toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent cay édifice public yoo xamante ni dañu ko yàq ci émeute yi nga xam ne amoon na ci weeru mars bi ñu ko xaymaa li ñu yàq tolloo na ci 15 milliards yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na en tout nga xam ne moom la ñu génn ak événement yi Sénégal naroon naa dugg ci giraawal yi waaye nag 2021 bi ñoo ngi xaar ndaw ñu ñu wutal leen liggéey ndax ñoo ngi parang-parange maanaam di tambambalu te léegi Macky war na leen a lijjante ba tey am na loo xam ne ci réew mi war nañu ko wax war na ñu ko lijjante war nañu ko régler mooy ñi nga xam ne dañoo ngar daajoo alalu réew te ba léegi ne dara fekku leen ca ak alalu réew mi leen dénk ñu war ko leeral yéene kaay gi du Sud Quotidien xëy wax ci année 2021 bi nee na lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi bi ŋàññi ko ay yoonu yoon aw turam dellu si wan maanaam ci place publique bi yéene kaay gi nee lu jëm ci wàllum mbënd mi maanaam inondation yi na askan

quotidien bi bëri na scandale yoo xam ne am na ci réew mi waaye nag jafe-jafe bi nga xam ne Sénégal am na ko mooy nan la ñuy def ba relance bi am ci réew mi maanaam suñu koomu réew mi nga xam ne jamono ji maanaam dafa nërmeeloo ana nan la def ba yëkkatiwaat ko loole ci la gars yi di nekk ba ko lijjanti waaye nag lijjanti ko tëna leen ticci journal bi nee na scandale am na ci bërëb yi nga xam ne moom la fajee coronavirus ndax a amel ab xaalis waxante dëgg metti na ci askan wi ba fu metti daal di yem yéen a gi ne na ci atum 2021 bi Sénégal naroon dugg ci giraawaaleeg musiba ma bu kumba goo xam ne maanaam du ñu ko fàtte ba abadan ay yéen a gi ne na li am ci réew mi njiitu mi di président Macky Sall war na cee wax ndax espoir maanaam yaakaar jamono ji ñi am yaakaar ci réew mi da nga leen di wàññee loolee moo tax Macky Sall war naa góorgóorlu ba indiwaat yaakaar ci ndaw ñe yéen a kaay gi ne na nag discours fin lan lay jëriñ ak lan mooy njëriñ le ndax yàgg nañu koo def ci réew mi te amulul askan wi benn njëriñ ndax ki jiite réew mi buy discours dafay wax ba ne gër wax ay projet projet yoo xam ne bu ñu paree dañu koy ranger sa tiroir ya moo tax journal bi xëy di laajte discours fin bi lan mooy njariñ li yéene kaay gi réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Mohamed Bougar Sarr muy wax ak di président Macky ci lu jëm ci ñetteelu candidature moom Bougar Sarr borom livre bi nee na Macky Sall wër te présenté amoon jamonoy Abdoulaye Wade loolee rek doy na exemple Italie li ko waral mooy état bu Sénégal moo leen amee lu toll ci fukk ciy milliards ñoom ñu laaj ko état bi ba sonn jamono ji nag nee nañu a tonni mbalit bu ko defee dëkk bi xeeñ xunno yéen ko denc sax armeel ya askan wa nga xam ne ñoo fa dëkk ñoom nag weddi nañu mbir moom bu tëdd sa naaj wa nee nañu bëri na loo xam ne wax nañu ko ci taskatu xabaar yi amul lenn loo xam ne dëgg la ca maanaam ay nit ñoo jóg bëgg a salfaañe seenub gox te loolee ñoom nee nañu duñu ko nango nee nañu nag mbir mi mbirum géer ak mbirum géwël musta demee noonee nee na dafa am ñoo xam ne dañoo jokko ngir bëgg a samp beneen armeel yu yees loolee lañu ñu leen lànkal mbir mi loole la ndax dafa am armeel yoo xam ne am na sëppu daña 1960 ba léegi armeel yooyee ku faatu ca dëkk ba fa lañ lay dencee waaye nag dafa am ñoo xam ne dañoo jokko bëgg a samp beneen armeel loolee la ñu moo tax gars di wax li nga xam ne moom la ñuy wax daal ñoom nee nañu dara du ci dëgg sunu làmb xëy di